maître Pape Sène ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax. di la dalal nga jiite comité sénégalais des droits de l'homme doon tamit euh, jaraafu euh, ndondol tey ji euh, mhm. le 10 décembre bi nga xam ne moom la ñu dëgmal ñu ci màggal journée mondiale des droits de l'homme tey jii ci Afrique situation bi ndax mën nga ñu koo xaymal tey ndax Sénégal bokk na tey bu ñu doon def benn list ci cinq dëkk yi nga xam ne respecté nañ ak ak yeleef doomu aadama. nga nga may ma ma fàttali rek. Mhm. tey parce que da nga ko wax léegi ci sa introduction. Mhm. dañuy màggal bés bi nga xam ne ci la àq ak yelleef doomu aadama moom boppam ci li ñu mën a wax. Mhm. parce que bu leen fàtte bu leen umpale que ne fukki fan ci weeru décembre. ci mille neuf cent quarante huit ci la mbootaayu xeet yi gannaaw ba ñu génnee ci seconde guerre mondiale. Mhm. génn benn déclaration boo xam la. te déclaration boobu dafa ëmb lépp loo xam ne dafa jëm ci doomu aadama surtout àqam ak yelleefam maanaam l'être humain. Mhm. donc tey jii ñu ngi màggal soixante douzième anniversaire bi euh, juróom fukk juróom ñaar fukk ak ñaareelu at bi nga xam ne ñu ngi koy màggal te ñu tënk ko ci thème boo xam ne dañ ne reconstruire en mieux maanaam tabaxaat bu ñoŋ parce que loolu it boo ko gisee euh, dafa di nekk dañu nekk ci période mbas boo xam ne nii réew yu bari suñu réew bokk ci ñu ngi tabaxaat seen économie parce que mbas bi dafa ñëw yëngal économie yu bari uh-huh. vraiment bu baax a baax euh, may waxit ne déclaration universelle des droits de l'homme boobu ñu koy wax charte euh, des nations du du déclaration boo xam ne nii tey dafay dafay dafay am maanaam dafay contraindre état yi déedéet mhm. déclaration la boo xam ne nii amul effet contraignant mais gannaaw ba ñu ko jëlee instrument juridique internationaux yi ci topp yëpp maanaam li nga xam ne yëpp tënkaat nañ ko ci adduna bi ci région Afrique wala yeneen région Europe ñu ci bari dañoo tënkuwaat dañoo génnewaat loolu nga xam ne moo nekk ci biir déclaration bi ci fanweeri article yi mm-hmm. euh, pacte internationaux yi nga xam ne am nañ ko en mille neuf cent soixante boo ko xoolee parce que booy xool lu ci bari lu ci ëpp li nekk yëpp ci euh, déclaration boobu mu ngi ci suñu constitution yi également ci seen bloc de dañ ko ci intégré gis dafay wax ci préambule am dafay renvoyer à la déclaration universelle des droits loolu nag dafay gën jox également euh, maanaam dafay gën a jox sañ-sañ dëgg gëdd déclaration universelle des droits de l'homme ci Afrique euh, mën nañu jàpp ne euh, wax dëgg yàlla bu ñu nee Afrique rek nit ñi mhm. dañuy jàpp ne Afrique mooy foo xam ne nii wax dëgg ak ak yellefu doomu aadama amu fa mhm. dañ naan amu fa ñenn ñi jàpp ne euh, bu fa amee dañ koy sooxeel xëy na mën nañ wax ne Afrique am na ay jafe-jafe ci fànn boobu waaye nag Afrique également mu ngi def ay jéego yu ci wàllu àq ak yelleef doomu aadama defe naa ne bu xoolee rek lu lu lu lu récent indice moo Ibrahima bi nga xam ne moom dafa am benn rapport bu muy génne at mu jot te àq ak yelleef doomu aadama ci àdduna bi def ci bokk ñu mhm. am ñetti réew yoo xam ne ni ci Afrique de l'Ouest ci am placement bu ràññeeku parce que dafa am lu ñuy wax le top dix ci classement bi top dix boobu Cap Vert moo nekk deuxième waaye Cap Vert Afrique de l'Ouest la nekk mu am soixante treize virgule et quelques points euh, Sénégal Euh, maanaam Ghana nekk Afrique de l'Ouest jël huitième am soixante quatre virgule trois Sénégal nekk dix neuvième am soixante trois virgule deux mais foofu Sénégal dafa am plus maanaam Sénégal moom dafa que yeneen réew yi sax la ñuy am ñii zéro virgule un point mais Sénégal dafa am ñetti poñ yu mu yokk maanaam un bond en avant kon ñetti réew yi rek li ñu ñëwoon ci rapport boobu mën nañu ci të tënku ne donte am na ay jafe-jafe ci wàllu Afrique yelef doomu aadama ci Afrique mais Afrique muy def ay jéego yu rëy rëy mhm. pour que àq ak yelleef doomu aadama nekk loo xam ne ni vraiment lu ñu lu la. Sénégal également gis nañu ko wax naa la ko bu ñu seetee Sénégal dañuy gis Sénégal daf ci ràññeeku ci top 10 boobu. Mhm. mais bu weesoo loolu également na euh, nañu ne Sénégal boo ko jëlee tey rapport Union européenne bu mujj bi ñu defoon. Euh, ci ci wàllu wàllu wàllu àq ak yelleef doomu aadama démographie bonne gouvernance ak àq ak yelleef doomu aadama bu mhm. dafa waxoon ne situation ak ak yelleef doomu aadama Sénégal situation bu baax la bu satisfaisante la mm-hmm. kon loolu it également lu ñuy renseigné la mais beneen bi nga xam ne moo gën a am solo international pour ñu mën ci natt suñu bopp mooy plan euh, élection Sénégal nga xam ne dañ ko tabbaat te ay réewi moroomam ñoo ko tabb cent quatre vingt huit mois ñu ne mooy moo njëkk moo jiitu ci groupe Afrique yi ci réew yi ñu tànn gannaaw bañ ko tànnee deux mille dix huit deux bokk ci euh, li nga xam ne moom mooy euh, comité conseil des droits de l'homme en tant que membre mmh. deux mille dix neuf ñu jox ko président bi maanaam mu jiite kuréel googu tey ñu ñëw ba mandat ñetti at yooyu jeex ci deux mille vingt ñu tabaat ko waat pour beneen ñetti at defe naa ne loolu également am na lu muy firndeel ci taxawaayu Sénégal ci jéego yi nga xam ne Sénégal mu koy def pour gën a dëgëral ak ak ay jafe-jafe justement jafe-jafe yi maître Amnesty ci rapport am bu mujj bu weeru septembre bi moo ngi wax ne Sénégal terre d'impunité la euh, tey ban commentaire ngay def ci loolu parce que yëkkati na ay ponk yi nga xam ne euh, tey euh, fële sukkandikoo pour génne rapport bi ndax gis na ay métital yi nga xam ne takk der yi ak it ñeneen dinañ ko def si ay nit te dara du leen ci fekk. waaw xam xëj na impunité am na fi ay cas yu ñu fi mën a tudd. waaye nag de façon globale un jugement d'ensemble. wax dëgg yàlla Sénégal mu ngi def ay jéego yu rëy ci fànn boobu. te ci loolu la ñu a natt réew mi également parce que bu ñu nee impunité. fa ñuy war a natt réew mi mooy maanaam est-ce que tey Sénégal nangu na bokk ci réew yi nga xam ne dañuy xaatim li nga xam ne mooy convention internationale de lutte contre la torture. parce que mbootaayu xeet bi dafay génne ay outils ay instruments juridiques di woo réew yi nga xam ne dañ ku nekk da nga am sa souveraineté bopp nañ da ngay ñëw signé ko ratifié ko pour wax ne man kat nangu naa pour jëmmal loolu mm. Sénégal daf ko ratifié la convention internationale de lutte contre la torture mais du yem foofu boo ko ratifié da ngay wax ne boo demee ci sa biir réew da nga koy domestiqué da nga koy transposé ci sa droit interne mm. boo ko transposé également da nga a mettre en da a mettre en œuvre place ay mécanismes nationaux de lutte contre la Sénégal gis ngeen ne at yi ñu génn def nañ mettre nañ en place ONLPL mooy observateur national des lieux de privation de liberté nga xam ne moom mooy saytu nekkinu ñu nekk ci kaso yi ak nekk ñu nekk ci lieu de garde à vue pour que seen àq ak seen yelleef ñu mun a sàmmonte ak moom conformément à la à la convention internationale defe naa ne loolu ay jéego yu rëy la ak boole kook nag yenn xeetu politique a carte judiciaire Sénégal dañu ko changé yooyu yëpp euh, am na ay lu muy indi ay njeexital mais damay wax ne également mhm. souvent dañu déggoo ci lan mooy impunité mhm. parce que impunité tekkiwul rek ne te li mu tekki pour man mooy bu ñaawteef amee gannaaw bi ñaawteef bi amee ñu ne tekk tekkaaral maanaam ñu jéem a xam fan la yëf yi loolu buy am ci réew effectivement mën nañu wax impunité mais impunité tekkiwul ne gannaaw ba ñaawteef amee ubbi nañu enquête saisir nañu autorité yi ñu war a saisir muy procureur muy autorité policière gendarmerie muy juge d'instruction muy sax même tribunal ba ñu dem ba àtte. Mhm. mais bu fekkee juge d'instruction moom dafa jàpp ne tey gannaaw ba mu enquêté ba pare moom warul mun a topp parce que amul ay charge mu rendre lu ñuy wax non lieu mais mënuñu ko parce que juge d'instruction bi rendre na non lieu ñu ne impliqué la. mënuñu sukkandiku également ci tribunal bu bàyyi nit parce que jàpp na ne amul lu ko topp ñu ne impunité la man pour man impunité mooy alors que ñaawteef yaa ngi fi moo tax ñun souvent bu dara amee dañ naan il faut ouvrir une enquête mm, loolu mooy le premier pas pour lutter contre l'impunité te defe naa ne loolu wax dëgg yàlla lu ci bari kaa yu bari ci yi am fii dana am ouverture d'enquête dana am également topp ba xëj na nag ñenn ñi dañuy xaar ka ñuy joxoñ wala ñi ñuy la présomption d'innocence parce que dañ ko joxoñ baaram dafa am sañ-sañu maanaam ñu sàmmoon teg ak ak yelleefam muy présomption yi nga xam ne moom la attekaay yi attekat yi parce que nag ñoom rek ñoo am sañ-sañu wax ne kat def na wala deful wala maître Sène def na wala deful xëj na ñun mën nañu mën nañu nañu na nañu joxoñ baaram bu ñu joxoñee baaram nag lay waru warukaayu état effectivement mooy bu ubbi enquête xool loola ndax am na wala am mais gannaaw bu ñu ubbee enquête nag ba pare la cay jeexital ba nag loola wax dëgg yàlla dañ koy bàyyeeg ña ñu ko sas mais bu ñu wax foofu ne impunité am na mais ñuy wax rek ne effectivement même bu fekkee am na ay am na am na am na débat bi sur l'impunité au Sénégal mais am na ay mesures yu état bi jël yu autorités yu jël depuis très longtemps vraiment di jéem a xeex ak loolu nga xam ne mooy impunité Euh, ci ci ci réew mi. tey jii en tant que défenseur des droits humains euh, lan nga xalaat ci mbir muy affaire euh, centre de redressement bu Serigne Modou Kara bi ñi nga xam ne ñoom lañ ci jëlee tey ci wàllum seen ak ak seen yelleef tey. doon wax léegi rek xam nga dañoo nekk ci réew moo xam ne ni état de droit mm-hmm. état de droit état dafay soumettre ci ci droit kon bu kan nekkul ci kaw loi. bu ñu jàppee ñoo xam ne nii am na lu ñu def loo xam ne dëppoowul ak yoon. Mm-hmm. dëppoowul ak àq ak yelleef doomu aadama mais comme niñ ko gisee. gis nañu que tey mbir mi ba mu xewee ah, gendarmerie la mu war a def def na ko procureur de la république la mu war a def def na ko tey juge d'instruction huitième cabinet la mu war a def def na ko bàyyi justice ak toutes les garanties yi nga xam ne ñun ak ak yelleef doomu aadama daf koy daf koy daf koy wax ñu sàmmoonteeg moom ñu bàyyi justice juge d'instruction boobu nga xam ne moo yore dossier bi mu càmbar dossier bi vraiment moo ñu war a wax ca njeexital ba lan la gis li mu gis ana kan ak la concerné ana kan ak kan la concerné wul nan la demee moom daal ci gàttal juge boobu ñu saisir tey moo ñu war a leeral ci mbir mi li xew yëpp ak nan la tëddee ñuy wax ne te responsabilité bu ci am parce que ñun loolu la ñu gëm mooy kenn ku nekk répondre ci sa responsabilité parce que euh, responsabilité pénale c'est une responsabilité individuelle kenn ku nekk la nga def ca lañ la mën a topp koo xam ne ni am nga ca solo ko ci sa biir juge bi jëpp jëmmal ko dañu dañuy wax ne loola nañ ko topp la ca yoon wax ñu def ko ci koo xam ne nii également jàpp nañ ne sa loxo nekku la ca yoon wax ñu def ko mooy maanaam ñu neenal nga dem sa yoon donc ñun jàpp nañ ne vraiment tey voix bi nga de te defe naa ne yu mel noonu dina tax mooy dafay conforter sax tey exemple boobu ñu joxe dafay conforté ne. Ah. impunité bi doon wax tey yàlla bu fekkee ne it am na ñu koy wax ah mesures yi jël daal wane na ne ñu ngi taxaw pour que impunité boobu bañ am ci réew. maître Ngaye euh, maire Ndondol bokk tamit ci collectif des avocats bu APR di défendre ak ak yelleef doomu aadama tey est-ce que casquette surtout bu collectif des avocats de l'APR du am dara lu mu gàllankoor ci sa liggéey ci wàllum ak ak yelleef tey ji boo waaw xam nga xam nga xam nga euh, maanaam tey nga nga nekk ak nga nekk kuy défendre ak ak yelleef doomu mhm. aadama nekk avocat nekk homme politique defe naa ne loolu euh, warul mun a tere nga def sa liggéey ni nga ko war a defe tey damay jël rek ku mel ni sama naataango maître Assane Dioma Ndiaye avocat la ba pare dafay sàmm ak yelleef doomu aadama mhm. tey dafay boo gisee dafay défendre tey ay parti civil suba mu défendre ay prévenus selon les cas mhm. donc man jàpp naa ne tey kenn ku nekk mun nga am sa opinion maanaam sa conviction du moins conviction du ci rek ci politique mais sa conviction religieuse maanaam nga am loo xam ci wàllu diine nit ki mën na am lu mu gëm également ci wàllu cosaan ak aada am lu mu gëm ci wàllu politique mais loolu waru ko mën a tere tey mu def liggéeyam la mu ko war a defee ah Elisabeth yow tey journaliste nga xëj na ñàkkul ne am nga ay conviction religieuse xëj na ñàkkul ne am nga ay conviction culturelle même ñàkkul sax ne am nga ay conviction politique mais boo demee ba yor euh, sol sa casquette journaliste di yooyu la ngay xool mooy sa déontologie kon man ci loolu lañuy tënku ñun ñun bu fekkee ne que dañu war a taxaw taxawaayu défenseur des droits de l'homme dafa am lu nekk suñu kanam loo xam ne ni moo ñuy guidé suñu waree taxaw suñu taxawaayu avocat également war a défendre un client mais dafa am également suñu déontologie euh, en tant que avocat lum ñu sas te loola la ñuy xool tënku ca suñu waree sul suñu bëgg politique aussi doxal suñu conviction politique fañ ko war a doxal dañ koy def defe naa ne loolu warul mun a indi gàllankoor ci ci ci liggéey yi nga xam ne moom la ñuy yoree parce que ça interpelle la responsabilité te xam nañu ko donc je crois que loolu wax dëgg yàlla boo demee en Allemagne tey pratiquement boo xoolee fondation yi fa nekk yëpp di défendre ak aadama bonne gouvernance fondation politique ay fondation politique lañ ñi dañuy dem ci libéralisme ñi dañuy dem ci leneen ak leneen ñi vert donc fondation yi c'est des fondations avec des convictions politiques réelles mais terewul ñoom ñëpp dañuy accordé wu ci les principes fondamentaux universels en matière de de respect des droits de l'homme ci loolu waaw ah, ci lancé boobu la ñuy desandi sax ndax euh, yooyu le euh, casquette tamit wala yooyu le ndomb tànk terew la euh, def sa liggéey nu mu waree ca sa mairie ga nga yor ah déedéet yàlla dafa dogal fa fi ngay waxee nii ak man maa ngi sama bureau à la mairie de Ndondon xam nga loolu rek firnde la ah. parce que nag euh, dafa laaj organisation te organisation boobu macha allah di euh, ba ñu fi nekkee ba léegi mais dafa laaj également adaptation parce que euh, bu ne que tey dañoo nekk joo xam gis nga ni mu mel ah. defe naa ne mbas mi am na lu ci wane bi mu ñëwee gis nga ne télétravail dafa am na ay vidéo donc man jàpp naa ne tey wax dëgg yàlla adduna bi jot na loo xam ne nii tey war ngaa mën a nekk fongole bi sax euh, di liggéey ndakaaru donc loolu du jafe-jafe d'autant plus que ñun fii dëkk tey fii xëy na am nañu benn chance boo xam ne nii on est quelques encablures de retour à péage Dakar ndondol da ngay def une heure de temps ak véhicule donc mun nga léegi ñëw def benn réunion à Dakar le matin le soir à ndondol le soir nga def Dakar def sa benn réunion c'est bien possible yooyu yëpp mu ngi fi fi nekk nii maa ngi ndondol di préparer le projet de budget deux mille vingt directeur d'école résident, une adjointe qui euh, en fait agent de la santé résidente et des commissions techniques yoo xam ne ñi ci nekk également ñu ngi ci dëkk bi seen xam may liggéey si di di ñëw également a chaque fois parce que bon man dafa ay bés yoo xam ne damay ñëw li nga xam ne war ko fi def ma def ko fi avec le suivi des dossiers donc dafay laajte méthode méthode ak organisation comme ni ko Léopold Sédar Senghor daan théoriser xam nga tey am nañu ci suñu arsenal administratif le boobu le bureau méthode le bureau organisation et méthode donc dafa laaj organisation et méthode te defe naa ne loolu wax dëgg yàlla posé problème trop trop trop moom la ñu war liggéey euh, moo xam suñu casquette maire la wala yeneen ndombo tànk yoo xam ne ni yor nañ ko war ko doxal. maître ci quelques secondes rek tey ñu ñuy lam-laame ne dañuy reporter local yi sa waaw man dama jàpp ne daal report local yi d' abord ñu préciser ne. bu ñu bu amee bu naree amit bu ñu ko bu maanaam du ci du ci du ci du ci du du ne rek dañu koy sëf président de la république ne moo ko bëgg sax ko mm. déedéet. président dafa woote woon dialogue national. Mhm. dialogue national boobu amoon pàcc bu ñu réserver dialogue politique. dialogue politique bi nag acteurs yëpp daje fa moo xam opposition moo xam majorité moo xam non aligné mhm. mais ñu am loo xam ne nii ñoom ñëpp dañu ko nangu ci consensus ne tey kat dañu war a dem ci auditer li ñuy wax électoral mais loolu tey bu fekkee war nañ ko def ñu jàpp ne audit boobu war na mën a jël temps. mais man jàpp naa ne tey auditer fichier électoral bi sur la demande des acteurs politiques hmm. pour ñu mun a am peut-être euh, beaucoup plus de garantie parce que ak ay zéro réclamation ou contestation demain jàpp naa ne bu loolu waree justifier reporté élection yi mais jar na ko parce que également euh, nañu wax ne euh, consensus la ci président bu kon am na ko donc man jàpp naa ne loolu war na mun a justifier report élection mais euh, bu report waree am loo xam ne nii ñun dañ koy def président daf koy def ay nitam pour parce que dafa am lu muy craindre déedéet dégg naa souvent ay yow politique yoo loolu man tey tey tey ni ma paree tey noonu la sama camarades yi collègues yi nekk ci yeneen communes yëpp pare noonu la coalition bi pare parce que damay wax ne élection uh-huh. surtout élection locale maire du ko préparer à un an deux ans kooku jour ba nga xam booba nga koy préparé te li may wax ni sëñ na soox dama la ko junj mooy maanaam ci lay commencé liggéey parce que nag fii ku liggéey amut looy xalaat te man jàpp naa ne tey boo demee dans presque toutes les communes du Sénégal gis une grande révolution mhm. parce que nag tey cadres yi dañoo delluwaat ci seen dëkk yu ñu mel ni man di liggéey ci d'accord merci beaucoup xam naa dinañ la euh, dinañ la seet si waat gën a waxtaan ci langue politique gi ak suñuy émission politique <laughs> dina ma neex trop dina ma neex trop merci beaucoup maître <laughs> mais c'est moi qui